donc nit ki da nga koy tëj dugal ko ci kaso bi euh, bu fekkente ni mënul ñàkk nekk ci biir. wala bu fekkente ni mënul ñàkk euh, tëdd kaso ci nga koy téye alors mais bu fekkente ni même boo ko àtteegul te daan ñëwagul bu fekkente ni jàpp nga ne su nekkee ci biti mënul la yàqal dara ci si euh, sa dossier bi. maanaam mënula la empêcher boo ko soxlaa mu ñëw mënul également fu euh, fekkente ni da nga bëgg a euh, déglu ñeneen ay témoins. Mhm. moom nekk ci bitim euh, ci dossier boobu du tax yow yow mi ko bëgg a àtte wala yow mi ko topp bu fekkente ni mënul la ko yàqal donc moom bu la ñaanee lu ñu tuddee demande de liberté provisoire loolu da koy mën na nekk motif yi valable pour yow nga mun ko bàyyi mu dem xaaraale saa su ko justice soxlaa. mu wuy ji mhm. wala saa su ko jàppee ne war na mën a euh, war na ko mën déglu wala wala mu ko mën àtte mu daal di ko woo mu dem ñu àtte ko wala ñu tëj ko mhm. donc loolu mu nekk loo xamante ni euh, ci yoon lu lu nit mun nangu la donc euh, puisque yoon dafa am lu muy doxee loolu je dis bien avec réforme judiciaire bu ñu def nii mhm. dina am soppeeku bu ci am parce que le juge d'instruction bi nga xamee ni procureur de la république moom mooy toppaate Euh, mu jóbbu la euh, prison def la mandat de dépôt mu jël dossier bi confier ko benn magistrat instructeur hmm. pour ne pas dire un juge d'instruction kooku yore sa dossier booy laaj demande de liberté provisoire moom ngay adressé hmm. mais kooku sañul la ko jox lu dul daa euh, laaj ki nga xamante moom mooy procureur kooku di tontu ko te kooku bu si opposé yow doo génn hmm. loolu je bien dafay mel ni jox naa la mbir mi doxalal waaye yow mënoo décider fekk. ci nga hmm. bàyyi ko sama loxo mu ci daal fekk man waxuma la waaw. te su ma la waxee déet même boo waxee waaw yow moom du génn. Hmm. donc loolu war nañ ko mun xoolaat mooy que ne tey procureur d' accord war na mun am doole mais doole ji warul ëpp warul bëri ba moom mu dugg si li ñu tuddee instruction ba. Hmm. bu ñu amee décision bu ñu jël il faut nga tàggu ko pour loolu mun am alors loolu je dis bien. pour que les juges les magistrats instructeurs gën a am liberté wala gën a am lu ñu tuddee euh, cette liberté de décider sans pour autant mu dépendre ci ki nga xamante moom mooy procureur moom war nañ mën def lu ñu tuddee euh, la création du juge des libertés et de la détention parce que loolu mooy solom su boobaa solom si mooy laata ngay ñëw sa demande liberté provisoire mën foofu ngay commencer d'abord mm-hmm. mooy que ni dès l'instant nga ne Masamba mii euh, dafa def lu yoon tere dañ koy jàpp jamono jooju alors boo ko jàppee balaa nga koy envoyé en prison da ngay xool est-ce que vraiment. Mhm. jar na ko quoi jar na waay léegi si mooy la dette mooy juge des des libertés mooy est-ce que vraiment jar na nga confisquer liberté am en l'envoyant en prison. Mhm. si tel n'est pas le cas mais. li ñu ko naroon may liberté provisoire ginnaaw bu mu tëddee foofu ngay commencé nga ne ko non dama ñibbi. Mhm. mais nag reste à la disposition de la justice. sinon euh, détention bi nga xool est-ce que moom li ñu ko li ko envoyé en prison est-ce que ça vaut le coup vraiment mu nekk fii pendant une longue détention préventive. te nga attéwoo ko est-ce que doo ko bàyyi. Mhm. c'est-à-dire que est-ce que vraiment mu nekk ci kaso bi est-ce que gënul mu nekk ci biti. parce que bu fekkente ki. Mhm. da koo jàpp même bu dee dafa def bu fekkee boo ko bàyyee. du la yàqal sa enquête du teree yow bu dee am na témoin wala yeneen éléments yoo soxla moom mënul la ci yàqal maanaam du am contact communication directe avec les les les les potentiels prévenus wala accusés wala complices mun dañ ne mën mun na bokk li tax nga war ko bàyyi bu fekkente ni moom bu nekkee ci biti du nekk menace ci société bi mm-hmm. wala société bi ñenn si ñoom duñ jóg vengé wu ci moom parce que am na yenn yee mbir yi. soo ko defee voilà société bi na ne waa kii def lii ba pare njort ni moo def lii ba pare ñu bàyyi ko day gis koo xam ne dafay fayu léegi ñu ne pour loolu bu fekkente loolu yëpp amul ak leneen kon kooku mun nañ fa jaar jox ko liberté provisoire. Hmm. léegi nag parce que loolu principe lay nekk su boobaa principe boobu nga am dafa am solo dafay tax justement lu ñu tuddee euh, euh, jox nit ki euh, mu am. li ñu tuddee ces ces libertés yoo xamante ni dañuy jàpp ne c'est des libertés fondamentales donte jàpp nga ne euh, il est inculpé pour benn infraction mm-hmm. mais aussi bu fekkente da nga war a dem def pour le oui pour le contre entre tiye ko et bàyyi ko ci téye ko da ngay xool est-ce que ëpp licence mu nekk ci biti à la place mu nekk ci biir. ci biir koy wax tout à parce que y' a des yoo xam ne certainement def nañ ko euh, yu yu nekkagul tout simplement en vigueur mais l'arrestation de de de de ku mel ni Cheikhouna Keita ça a suscité beaucoup de débats les gens jàpp ne sax c' était un peu terre à ko jàppee ci joxe information comme quoi président ak premier ministre doon xeex est ce que là aussi war ñu gën a dem au delà de justement euh, ci réforme yi nga xam bu ñu ko joxee lu ñuy tuddee le rapport de présentation des conclusions mm-hmm. euh, daf ne woon euh, toutes les réformes qui ne qui n'engendrent pas lu ñuy tuddee euh, des incidences financières alors dañ koy appliquer alors qu'il n'y a pas une réforme mm-hmm. ci droit en tout cas ci réforme yi ñuy def ni ci wàllum yoon amul benn bu amul incidence financière peut-être day am selon ñu ñu ëppalante selon des c'est à des degrés moindres mm-hmm. par exemple quand tu veux dire euh, tu veux modifier euh, le code pénal sénégalais. Ouais. par exemple ou bien le code de, le code de procédure pénale. wala nga ne da nga bëgg a améliorer les conditions de travail des agents de l'administration euh, pénitentiaire ou bien da nga bëgg a améliorer lu ñu tudd les conditions de détention des Séné des des prisonniers mais quand tu veux nga améliorer ko bokk na ci seen fu ñu nekk. ñu nekk dans un cadre boo xam ne carcéral. boo xam dafay dafay correspondre à la dignité humaine. mooy nit ki jàpp nga ko mais du mala jàpp nga ko mais nit la mais dafa war a tëdd dafa war a lekk dafa war a naan. Mhm. lu muy lekk dafa war a nekk une alimentation de qualité alimentation bi tey munoo ko nga jë yë jëlee ko 635 par jour par par par prisonnier par jour. Mhm. nga yóbbu ko si mille et deux cent su ma juumulee alors boobu soo bëggee yokk qualité de l' alimentation il faut nga dépasser mille boobu. maanaam di nga dem pourquoi pas 1500 par jour. Oui. ou bien 1500 par jour par détenu. Mm -hmm. par jour par détenu on mais ça c' de l' argent si tu as ñu ne on a au moins 13000 détenus dans les 13 euh, dans les 13 plutôt euh, établissements euh, prisonniers. waaw mais su boobaa jëlal 10 000 multiplié par 1500 ça veut dire que loolu ngay xam ne journée bi ci prison Sénégal journée. bu dee ci lekk kese. <laughs> mais loolu c'est war ko def un mois war ko def un an parce que mhm. Mhm. benn lekk naan ay millions yu jeex ay centaines de millions léegi moo ci gën ndaw parce que benn beneen bi quand tu veux dire que waaw longue détention dañ ko war a régler pour régler les longues détentions il faut régler le déficit des magistrats, parce que longue détention bu amee c'est parce que tout simplement nombre bu nu am 546 xaw ma magistrat nu am dafa tuuti par rapport ak lu ñu tuddee. le nombre de détenus waay. waaye c'est ça léegi boo bëggee régler longue détention préventive bi il faudrait régler d'abord s'attaquer à la question bi nga xamante moom mooy. ñi war a àtte wala ñu war a dégluwaate toppaate bëriwuñu par rapport ak nombre bi donc pour régler loolu dossiers yi bëri nañ lool waaye ñu war a saytu dossiers yi ñoo bëriwul léegi boo buggee bëri dossier bi gaaw mhm. ñu bañ a def lu ñu tuddee yenn erreur judiciaire wala téye nit ko ci kaso yi xamoon na def noonu deful mais danga nga fa bàyyi mais il faudrait justement nga yokk la formation nga recruter et loolu recrutement formé parce que ça suppose un concours et ce concours là il est il n'est pas gratuit il est il est il est coûteux boobu noonu mooy parce que su boobaa di nga wax Sénégalais yi kaay def leen euh, déposer def et cetera kaay leen et nga organiser les condition d'un concours ça aussi ça l'argent nga former leen mm-hmm. et tu mets de l'argent pour nga former leen pour ñu mun dem atte et loolu yëpp c'est de l'argent tey boo bëggoon def également modifier le code de la le code de procédure pénale mm-hmm. euh, alors ñu ne la retour de parquet nekkul ci code de procédure pénale waaye ñu ngi koy def léegi lan la ñuy def ba dindi ko wala lañuy la ñuy def ba instituer loo xamante ni ki la nga xamante ni tey bu fekkente ni mënul laa déglu mhm. du la jàppalu mhm. tey nga jàpp nit ki mu dem commissariat wala brigade nga téye ko fa benn jeudi alors procureur war la déglu ñu ne la non woowagunu nga nekk ci commissariat bi nga dem nga dem wuy ju wuy ju ko le vendredi nga dem toog xaar amul sa jot parce que dafa am ñeneen ñu ne la retour de parquet kon koo yow di nga tëdd wala xamagoo ndax da ngay dem mandat de dépôt. wala xamagoo ndax da lay libéré da lay bàyyi waay mais diggante boobu mënoo ci am lu la leer parce que moom moom moo la war a déglu mu gis ne jar na ko mu mu waay la mu yóbbu la plutôt nga tëdd kaso la ñu attelé le lendemain ou bien jaru ko mu ne demal ñibbi sa kër. Mhm. mais diggante boobu pour loolu am il faut mu am le face à face avec le le procureur de la république. Ouais. si le procureur de la république avant yow ñu lay interpeller. mu am na cinquante dossiers yu mu teg ci table bi mais il pour mu wax ak yow il faut mu liquider. Mhm. il faut mu régler ces cinquante dossiers. léegi nag loolu mooy jël temps c' est le mhm. cas avec Bougane Gueye Dany. oui les deux jours par exemple bu fekkente ni woon am nañu le nombre de magistrats yi atte a mhm. Tambacounda jour bu ñu ko jàppee présenté ko le procureur le lendemain lañ koy. atte léegi su boobaa boo jël sax du tëdd di dix jours de prison parce que avant moom ñu koy jàpp. ba ñu war ko àtte kooku jàpp ko ba mu ko dégloo am na yeneen dossier yoo xamante ni bu ñu demee tribunal d'instance. Hmm. am na yeneen dossier yu ñu. yu ñu prévoir woon ci semaine boobu. donc il est obligé mu topp rang bi donte mooy Bougane Gueye Dany. Hmm. mais rang yi day jub mooy da xaar rang bi ba sa bos jot après ñu àtte la léegi loolu mooy déficit de magistrat su boobaa mënoo ko wax juge bi non lu tax ngeen koy téye alors que c'est flagrant délit c'est un flagrant délit mais après lan lay def. dafay ñëw jéggi sénégalais yi amoon 20 dossiers xaar ñu àtte léegi ñooñu bu dee seen mbokk ñu ngi xaar ñu àttali